salaam gars yi nuyu naa leen dal leen ak jàmm Sen Sport 221 Idrissa Gana Gueye l'international sénégalais moom nag jàpp nañu ne dina delluwaat fële nga xamante ni mooy ca clubam boobu di Paris Saint-Germain gannaaw bi nga xamee ne kat ñu ngi waajal match bi war dox seen digganteeg Real Madrid talaata bii lay doon talaata bii di ñëw la 15 ci la Real Madrid war jouer contre Paris Saint-Germain ci li nga xamante ni mooy huitième de finalu Ligue des Champions Idrissa Gana Gueye nag nekk joueur boo xamante ni ñii di Paris Saint-Germain dañu ko soxla ci jogante googu loolu gannaaw bi nga xamee ne kat moom day joge jógeel ci li nga xamante ne mooy kan bi te a noppalu nag ay fan waaye nag kayiti xibaar fesal nañu ne jamono yi waa dañu ko yàkkamte ndax kat ki nga xamante ne mooy Neymar nekk na joueur boo xam ne ku am solo la ci club boobu te moom séntuwuñu ne dana ci bokk gannaaw bi mu amoon blessure nekkagul ngir war a mën a bokkaat ci li nga xamante ne mooy groupe boobu waaye Leonardo Paredes moom itam nekk jour boo xamante dafa amoon ab gaañu gaañu te it jàpp nañu ne moom it du jàppandi ci moom ngir mu bokk ci match boobu jamono yi li nga xamante ne moom la Paris Saint-Germain am comme ay milieu comme ay joueurs yuy joué ci milieu terrain bi mooy ku mel ni Marco Verratti Danilo Pereira wala André Herrera te ñi ni ñëpp ay jour lañu yoo xamante ne bu dee Gana Gueye teew na wér na moom day joué ci seen kanam loolu war na ba jàpp nañu ne kii di Gana Gueye dina delluwaat Paris Saint-Germain ci nu mu gën a gaawee gannaaw bi nga xamee ne euh, ñii di Sénégal ni ki démb rek la ñu mujj ci li nga xamante ne mooy feet googu ñu doon amal gannaaw bi ñu gañee lii di kan bi ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy moom dèjà dellu na ak clubam di Chelsea waxoon nañ leen ko fi image yi ngeen di gis noonu mooy tàcc bi nga xamante ni dégg ñi nga xamante ñoo di ay mbokkam wala ay xaritam ñu ngi ko doon tàncu grand bi mu demee foofule ca Abu Dhabi fekk ji joueur Chelsea football club yi tey jii seen match bi nga xamante war nañ ko jouer ci demi-finale yi waaye nag moom Edouard Mendy nekkul titulaire ci banc bi la nekk ki nga xamante mooy Kepa Arrizabalaga moo titulaire ci match boobule ñu séntu ne amaan na ci final bi bu dee Chelsea jàll nañu ci final bi séntu nañu ne amaan bu dee gagné nañu lii di ko du monde di club boobule dina ko yokk li nga xamante mooy ay raaya ci at bile ndax xam ngeen ne at bi atam Edouard Mendy la xam ngeen ne gagné na fi Ligue des champions gagné na fi super coupe d'Europe gagné na fi li nga xamante ni mooy meilleur gardien du monde gagné na fi li nga xamante mooy meilleur gardien ci kan bi ñu jógee dégg nga ak yeneen raaya ak kan bi nga xamante ni moom la gagné barki démb voilà kon bu fekkente ne gagné na li nga xamante coupe du monde di club boobu dina nekk lu am solo ci moom moom kii di Edouard Mendy dina ko doli li nga xamante ni mooy ci palmarès am loolu war na ba mu gaawantu fekk ci ñi nga xamante ñoo di Chelsea football club comme ni leen ko waxee du mën a jouer tey jii waaye nag mu ngi ci banc bi mu ngi ci banc bi waaye nag ci match bi nga xamante ne mooy ci topp bu dee Chelsea qualifié na ci final bi séentu nañu ne Edouard Mendy dina football ci final boobule Sadio Mané moom kii di xibaar dañoo fesal ne jamono yi amaana dina génn Liverpool bu saison bi jeexee ndax kat benn at ak wàll képp moo des ci contrat bi te ba fii ñuy waxee yéen déggaguñu fenn fu ñu ne Sadio Mané prolongé na contrat wala ñu ngi waxtaane lu aju ci prolongation boobu kii di xibaar bi mu ngi fesal ne kon bu fekkente ne club yooyu di ko doon topp ay at ci ginnaaw club bu mel ni Barça ay Real Madrid bu dee daal ñëwaat nañu kii di Sadio Mané da takk ay bagages am kële kii di xibaar bi kii di xibaar bi di ko bind jëlee kii di Sadio Mané ubbi na bunt yi bu saison lenn at képp mooy des ci contrat kon su boobaa li nga xamante ne mooy génnam foofu la ci Liverpool dina nekk loo xam ne lu jàppandi lay doon bu dee déggoo amul ci digganteem ak Liverpool ngir war a mën a prolonger contrat am te ba fii ñuy waxee amagul dara luñ ci dégg ci wàllu googule lu aju ci wàllum prolongation moom kii di Sadio Mané. Younous Sankhare sunaa sénégalais moom day footballé fële ci Turquie moom nag day dund ay jafe-jafe ak clubam boobu nga xamante ni mooy Giresunspor ngir seen sport ni ki daaw rek la ñu monté ci li nga xamante ni mooy super league bu Turquie signé ki nga xamante ne mooy Younus Sankharé waaye nag gannaaw ga ay weer képp mu commencé dund jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu koo expliquer ndax kat moom dañoo sàkku woon ci moom ngir mu wàññi li nga xamante ne mooy salaire am mu daal di bañ waaye daal séntu nañu depuis boobu ak léegi ay jafe-jafe rek lay dund ndax ñaari weer ñu génn yépp moom kii di Younus Sankharé jotut li nga xamante ne mooy salaire am te dara waralu ko lul mer go xamanteni xeyna xëy président bi mer na ko ko dem na sax ba koy digu manam di menacer diko wax na de mom amana dina yabal li nga xamanteni moy ay supporters yi supporters club bobu ngir ñu dem kërëm te lool nak su amé mom musiba lay doon mooy danañu ko gañ wala ñu yàq li nga xamanteni moy kërëm rek voilà li lépp nak mu ngi xew mom mu koy dund jamono mom kii Younouss Sankhare nee sax dañoo dagg li nga xamanteni moy courant ñu ak yeen kërëm amul courant denga nga linga itam li nga xamanteni mo aju ci appartement boobu nga xamante ne fa la dëkkee club bi sax dañoo sàkku ci moom ngir mu delloo ko kon moom jamono yi lépp loo xam ne ay nattu la rek ñu ngi ko koy teg dara waralu ko lu dul sàkku ci moom ngir mu wàññi salaire mu dal di bañ te am na ci plein droit ndax ñoom ba ñu koy signé xamoon nañu waxoon nañu ba déggoo ci li nga xamante ne mooy salaire bi ñu koy fay te ak léegi yàggul yàggul dara ci juróom-benn weer képp lay toll kon tey ji bu ñu taxawee di ko wàññiloo salaire am am na droit bañ kon nag comme bañ na dégg nga ñu ngi dal ci kawam di ko teg li nga xamante ne mooy nattu yi yëpp te lii ay mbir la yoo xamante ni bu dee ñii di FIFA def nañ ci ay gëstu club boobu wala UEFA club boobu mën na am ay daan yu dal seen kaw yu méttee métti waaye Younouss Sankharé moom mu ngi ko doon dund tey jii nag feeñal na ko ba kii di xibaar yu sakkan dal dinañu ciy bind mu nekk loo xam ne lu doy waar la moom kii di Younouss Sankharé l'international sénégalais ci Turquie googu la des ak kii di Papis Demba Cissé l'international sénégalais moom dafa signé ak club bi nga xamante ne mooy Rizespor nekk foofu la ca Super bu Turquie ñoom nag club la boo xamante ni dañoo nekk 18e place ci li nga xamante ne mooy table championnat bi kon ñom walu lañu wut bu kenen bu papis yexé rek mën nañu wacc ci li nga xamanteni moy deuxième division bi waaye nak papis dem ci amaan na mën na leen sauver ndax joueur la bo xamanteni ni dugal rek lay def na ci championnat bu turki gis ngeen bi muy nekk fofu la ci alanya sport amna at diki daw daaw jéeg rek loolu jege wéri bal la dugaloon ci ben at lool nak nekk na loo xamanteni bu dé euh, dégg nga woné nako ak club bi di Rize Sport ñu dess ci li nga xamanteni moy super league bu Turki. kon signé nañu ko contrat bi nak juroom weer képp la diire ndax papis ci sa kat jamono yi mag la wéri at ak juroom ben amna ko ba tay ji la dàq dugal te nag am na option bu fekkente ne juróomi weer yi gis nañu lu dal seen xel ci moom dinañu yokkaat yeneen at ci li nga xamante ne mooy contrat boobule waaye jamono yi ñuy wax ak yéen 5 mois la signé maanaam fii ba saison bi jeex bu ñu sukkandekoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante ni nag mooy Antonio Rudiger bi nga xamante ni moom joueur Chelsea football club la moom nag jamono yi Chelsea def nañu dégg nga wala Chelsea def nañu benn pas ngir war a mën a li nga xamante ni mooy contrat ndax kat xam nga ne ay jamono ci ginnaaw kayiti xibaar yi ñu ngi doon fesal ne am na club yu koy topp foofu la ci Europe club bu mel ni Paris Saint-Germain ay Real Madrid doon ngeen leen dégg waaye nag jamono yi ki nga ne loolu la ko tegal ci taabal ji bu fekkante ne nangu na loolu dinañu prolongé li nga xamante ne mooy contrat moom kii di Rudiger xam nga moom day sàkku ngir ñu yokk li am ci kaw loolu a prolongé bu dee ngi teg xaalis bu baree bari ci taabal ji a a téye Rudiger ci club boobule loolu war na ba tegal nañu ko contrat wu 200 000 d'euros par semaine wala lu ëpp 200 000 d'euros par semaine bu ko nangoo rek ñu daal di yokk li nga xamante ne mooy contrat bi mu daal des foofu la ci Chelsea football club ki nga xamanteni nak moy Dani Alves mom kanabi bi mu amé won carton rouge ci match bi nga xamanteni Barça ñu ko doon am ay fan ci ginnaaw seen digënté ak Atlético de Madrid mom nak jamono dañu ko daldi di lu toll ci ñaari match yo xamanteni duko football kon carton rouge boobu mo amone contre Atlético de Madrid mo waral jamono yi dal nañu ko acc ñaari match yo xamanteni duko football ci li nga xamanteni moy championnat bu Espagne xam nga mo mënul jouer ci Ligue des Champions wala bok ci Europa League bi bokul ci kon championnat rek la mëna football waye nak ñaari match yi dina ko top ci championnat mom ki di Dani Alves fofu la ci FC Barcelone